marhaban fépp gu agent fonction publique di diiru mandat jëmale ko ci ñokkal leen seen salaire moom la moo la bi yéen i kaay xëyee ni ki tey jile témoin quotidien nañu ginnaaw bu ñu nemmee ko abu yëkkut salaire bi ñu jàpp ne daa am kumba am ndey ak kumba amut ndey ay fonctionnaire yu ne ci fukk ak ñaari ministère daal di lañuy menacé ginnaaw bu ñu meree bay futu suñu naataango yi ñu ngi xam le ni yooyu lay fonctionnaire bañu ñu sax bay indi gàllankoor di maanaam paralysé doxalinu administration bi jëmale ko ci nas ay doxu ñaxtu di maanaam ay marche wala ay toogaanu ñaxtu loolee nag bés bu anto yéenekaay bi jàpp na ne lu ñu musta gis ci Sénégal mooy ama Vox Populi déggal xibaar bi ne ab mbootaayu liggéeykatu administration bi ñooy menacé jamono ji ngir indi gàllankoor ci doxalinu gouvernement bi démb lañ ko daal di xamle ginnaaw bu ñu nakkaarloo ñakk yemale bu ñu nemmeeku ci doxalinu nguur gi nga xamante ne dafa taxaw temb ci ndigalu président Macky Sall yokku salaire yenn ci ay agent daal di leen fàtte ñoom ñi nga xamante ne jàpp nañ ne liggéey bu ëpp solo bi sax ñoo koy def ci bi ya coow lu jafe-jafe yu tar la fas yéene jural président Macky Sall ndaxte yéenekaay bi mu ngi xamle ni ci seen jano ak taskatu xibaar yi ni kii démb yi les agents yuy ci fonction publique daal dinañuy ni dinañu amal ay marche ak yi sitting ngir sakku ab yemale ci fonction publique bi rax si dolli itam ñu maasale ñëpp jëmale ko ci ay indemnité de logement ak yeneen ak yeneen ci wàllum politique yéenekaay yu las mu ngi xamle ni président Macky Sall tey jii la gën a dogu ngir amal élection législative yu ñuy dëgmal fanweeri fan ak benn ci weerum sulet ni kii démb daal dina ci joxe ay tegtal ci ndajam conseil des ministres yéene kaayu critique nañu ci boobu le ndaje président Macky Sall ci porox ndollu itam delloon jukkal Moustapha Niass ndaxte jàpp na ni ab liggéey ju mucc ayib la def ci bopp assemblée nationale ci jojule jamono yéene kaayu enquête moom mu ngi tàmbale xalaat quatorzième législature bi nga xamante ne moom la ñuy dëgmal tey xamle ni ab assemblée bu doy waar la ñu fas yéene nemmeeku li ko waral la bu ñu sukkandikoo ci suñu naatango yi bokk na ci li suppléant yeewi askan wi mu jàpp ne bu ñu moytuut dinañu dugal ci assemblée nationale ay nit nga xamante ne kenn xamu leen jaa ngeen